محل أيمين والأيمين وانخاد ذكره الأيمين لكالكيل والجشايد mbokk yi ñuy déglu te di ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono ji ci dëkk bu sell bii nga xamee ni sosoon nañ ko ci ndigalul ko tedd ka Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul muy Daaru Karim jàkkaarloo ak njabootam gu sell gii ci bopp bi Serigne Fallou Mbakke xalifa Serigne Modou Fati Xari nekk ca feggoo ak i rakkam waaye feggoo ak kuréel gi nga xameen si ñoo lëkkale sëti Serigne Modou Fati Xari yi feggoo ak magi taalibe yi seen xel dina dem ci guddi gu màgg guddi gu sell guddi gu ngëneel guddi goo xamee ni digganteem ak sëriñ Modou Fati xëri booy na ay nopp ginnaaw baateem ki jëkk a toog toogaayam liggéey ci liggéey bu am solo muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Fati Xari yàlla na yàlla yokk ay leeram tabar saqol Mahamadiya ba tey liggéey boobu nag muy liggéey bu Laylatul Qadr tegu ci loxob sëriñ Fallu Mbakke moom sëriñ Modou Fati xëri mu fas yéene koo ànd ak ñëpp ren nag muy ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Touba sëriñ Muntaqa Mbakke xalifa général kulu mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool bu xànd ak wér-gu-yaram jaar ci sëriñ Mamor Mbakke xalifa sëriñ Masamba Mbakke ñëw nag ci sëriñ Fallu Mbakke xalifa sëriñ Modou Fati Xari mu fas yéene ko ànd ak mboolem ñi mbokkal bokkal sëriñ Modou Xari rakam di jëwriñam sëriñ Bachiru moom sëriñ Modou Fati Xari sëriñ Abdoulahat Mbakke sëriñ Moustapha Mbakke sëriñ Baara Mbakke ak mbooram sët mboolem sët yëpp. ren mu war a doon alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci aw weeru koor wi yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2022 fii ci Daaru Karim sëriñ bi di ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn xam ngeen ni bis booboo tam at mu jot da saa yu jigesee danañu woote mbale moo xaman ci dañu setal dëkk bi mbale moo moomu nag ren war a doon aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril incha ñu fas yéenee bale dëkk bi sëriñ bi nag tuyaaba jum yéene ñëpp ak bëgg gu bëgg a ànd ak ñëpp bis bi moo tax tey ñu teew fii ci kanamam fas yéene yëkkati kàddu yu woote ak soññee jëmale ko ci bis bi. ay kàddu yoo xam ne dafay jëm rek ci daayira yi nga xam ne euh, dafa aju ci sëriñ Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Modou Fati Xëri di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram ca barsax Muhammadiya ak mboolem ko ko fekk ak ko fekk. di ko def rek comme ni nga xam ne moom lañ ko doon defee mooy saa suñ ma saa agsi fii. dañuy woo mboolem ñi nga xam ne dañoo aju ci kër gi kon ñu ngi yëkkati kàddu ci ndigalu suñu kilifa Serigne Modou Fall mi nga xam ne yàlla dogal na mooy euh, président dairatul muhibbin wala muhibbat di woo mboolem fu fi ab maire nekk rek ña ngi lay woo kem ni nga xam ne moom lañ daan daa wooy ci leelatul xadar gi lañ ca doon di fi noonu rek lañ koy defee nañu ñëw euh, def ko comme noo ne ci mbala mi comme niñ ko présenté léegi mboolem lu ñu ci doon def rek dañ koy yokk incha allah ñuy woo ñëpp rendez bi incha allah Daaru Karim euh, di ñaan suñu borom àggalu ci ak jàmm te ñu daj cee ngërëmal suñu borom ak tawféexi sëriñ bi. addu yi jëm ci bis boobu mu daan defal jëwri nañ bi sëriñ Seexum sëñ Modou Faata Xari di ndogu yi mu daan def bu ñu laylatul xadiree ba ci suba ga mu daan def ay ndogu di ko yóbbu ci jëwrinam ja sëriñ Cheikh Mbackeem sëñ Modou Faty Khary di ñaan suñu borom yokk ko tedd nga ak ngërëm fa mu nekk ak mboolem ñam fa fekk ñekk kàddu yi nag mi ngi jëm ci daayira yi nga xamee ne ñoo daan taxawee liggéeyu ndogu yooyu ñu daan def ci buñ laylatul xadar ba ca suba ga sëñ bi dafa wax ne bis boobu ren dañ koo indi ci bis bu laylatul xaddar gi waaye dara du ca soppeeku nañ koo maase waajal te fonk ko di ko yëgal mboolem daayira yi fuñ mën a nekk daayira Nuuru Daarayni bi fu ñu mën a nekk bu dee fii ci Touba jëwrinu sëñ Ibra ci jëwrinu sëriñ Ibrahima Gaye sëñ bi nee na mi ngi lay mi ngi lay soññ di ko jaare ci yow nga soññi daayira Touba bi yëpp ñu waajal bis boobu bisu ndog yi niñ ko daan defee ñu waajal ko te xam ne ren la liggéey bi di gën a mat ci lay gën a yaatu ñu waajal ko te fonk ko te xam ne lépp lu ñu daan def ci àjjuma je bi ren ji ci alxames ji di bisu Laylatul Qadr ci lañ koy def sëñ bi nee ngeen waajal ko te noonu la soññee bi ak ndigal di demee ci daayira ba ca ndakaaru ci ji jëwrinu sëriñ Mamadou Ndiaye noonu lay demee ci daayira ba ca Louga ci jëwrinu sëriñ Mourou May Seck noonu lay demee it ci mbokki taalibe yi nekk bitim réew bu dee Italie ci jëwrinu sëriñ Talla Assadia ak waa Italie gépp bu dee ca Espagne ci ndigalul sëriñ ci jëwrinu sëriñ Xaadim Diagne ak sëñ Daam ja ak waa diaspora bi yëpp. li ñu yëkkati mooy li nga xam ne donc dañ ko far faral def. ñu boole seen kàddu gépp jox ma ko donte mënuma ko it ma di ko jëmee jàllale. moo di bis bii nga xam ne leen dëgmal muy leelu xadar suñ kilifa gu mag daan ko def sëñ Modou Fati xari ba wàcce ko ci sëñ Cheikh Mbacke mu di ko def ba re yàlla yàlla wàcce sëñ Cheikh sëñ Fallou muy toog dégg ngeen lii seexu naa wax léegi wax ne ndogu yam daan def di ko jox sa kilifaam ga da koo bëgg a boole lépp kon nag leelu xadar ren gii moom dafa masa war a yegg fu genn mës a yegg. ndax ñaari bis la woon ñu boole ko muy benn kon taalibe yi nun taalibe yi nañ xam ne foofu fi la suñu pësteef nekk loo xëyee dañ ko def alxemes def ko ajjuma ñu def lépp ci ajjuma ji kon war naa mel noo xëyee mësu nooy mel yàlla na ko façon bi yëpp noonu lay mel kon nun dongo yi nan xam ne lépp loo xëyee mooy doxal këru sëriñ dongo yi rek la alaji bari yàgg na koo wax lépp dongo yi waaye ko nan fedd liwaat sunu laxasaay suñu jàmbaar dina àndoon mu doon ko liggéey ba yàlla dogal mu uh, ci weer wii daaw leen ko barabam bi ñu yàlla na yàlla dolli leeram te gone yi mu fi bàyyit yàlla ci suñu borom teg loxo ba lépp lu doon def ñu man ko ànd kook seen kilifa yi kon ñoo ngi soññi ñëpp. ñoo ngi waxee ci turu daairatul ahfaad wal xafidaat li li cheikh Mouhamadou Fati Khary li tawtiidi rawaabi li tawtiidi rawaabitil uxuwati wa taxaabub muy kuréel gi nga xam si moo lëkkale sëtti sëriñ Modou faati Khary yi yu góor yi ak yu jigéen yi yëpp ca sëriñ Seex moom sëriñ Modou Faty Khary tànnaloon ñu ko joxoon ñu ci ndigal boobu ba léegi ñu ciy liggéey ren jii nag ñu xaw ci am ak coppiku tuuti muy conférence boobu ñu ci daan def daan ko gàttandoo laylatul xadar gi ren dañ koo ajandi ba demee nag jàmm waaye nag loola niñ ko wattee ñu ngi woo mbooleem sëti sëriñ Modou Faty Khary yëpp fu fi satub sëñ Modou Fatick di nekk ren ñu ñëw ñoom ñëpp taxaw ci wetu suñu kilifa yi ñu jàpp ci liggéeya bi ba mel ni conférence bi am na. kaddu gi ñuy jàllale muy kaddu sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Cheikh mu sëñ Modou Fatick xare mi nga xam ne moo amee jataayu sëriñ seex lim ci sos ci kaddu kilifaam yi di ko ci teg ci ndigalul sëriñ Fallou. muy laylatul xadr gi nga xam ne mi ngi koy jàllale ci ndigalul kilifaam gi di ci woo mboolem njabootuk sëriñ Seex gi di ci woo taalibe yi di ci woo soppe yi ak mboolem koo xam ne bokk naa moom sëriñ Seex lim ciy dolli nag mooy ñaan gi nga xam ne mi ngi koy amal mu ciy ñaanal waajuram wu tedd wa sëriñ Seex mi nga xam ne moo na ci bopp njaboot gi tey moom la ci soññee di ci soññ mboolem foo xam ne kàddu gi yegg na fa ñuy wax ci turam muy ñaan goog nga xam ne mi ngi ko ciy sos ci ndigalul sëriñ Fallu mii toog moom sëriñ Modou Faty Khary di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te sëriñ Modou moom it ñaan goog yi wax ne ci lay fàttali ko tedd wa fas ko yéenee sos ci bii nga xam ne waajuram bàyyi woon na ko fi mu di ko defal seen waajur muy sëriñ Modou Faty Khary nee na di ci ñaan suñu borom tawfeex ji nga xam ne bis bi làmboo na ko loolee rogalaat ba agsi ci bis boobu nga xam ne ci lay fàttaliku way juróom woowee di ci ànd ak mboolem njabootuk sëriñ Cheikh gi di ci ànd ak ay kilifaam di ko waxee ci turu kilifaam gii toog muy sëriñ Fallu moom sëriñ Modou Fati Xari si mun taxa Mbacké mi nga xam ne mooy sëriñ Touba tey ñu ngi koy ñaanal yàlla wéral ko sëriñ baa ngi koy woo ak njabootuk sëriñ Touba gi yëpp mi ngi woo nag njabootuk Cheikh Massamba Mbacké gépp di ci jiital sëriñ Mamour Mbacke mi nga xam ne mooy seex ma sàmba ak sëriñ Abdul Xabir mi nga xam ne mooy rakam ak njabootuk ma sàmba gépp sëriñ Fallou ngi leen di woo ci laylatul xadar gi muy amal fii fi Daarul Karim laylatul xadar gi nag bu ci yeggee kenn ku nekk xam na ne bu ñu xëyee alquranul karim la ñuy ubbi ko sëriñ Saliou Mbacke moom moo yor wàll woowa waaye ci biir kaamil yooyu nag danañ ci fàttaliku sëriñ Cheikhoum sëñ Modou Fati Xëri bu baax ndax bis boobu mooy bisam mooy bisub tul xadar boobu ci la tànnoon moom la ko yàlla jox moom la ko yàlla booleel itam kon ñu fàttali ko ci bu baax waaye bu nu demee nag ba àgg ca euh, le 22 bii nu dëkk dëkkmal soññi nañ taalibe yi yëpp mbooleem koo xam ne kër sëñ Modou Faty Khary nga bokk nu ñëw ci dëkk bi ñu defaraat dëkk bi yeesal ko muy am mbale moo xam ne dañu koy defal ci dëkk bi ngir defaraat yëf yi ngir mën a teeru gan ñi loolu wéyee itam bu ñu yeggee ca bis ba. Serigne lu wax na ne ndogu yi mbooleem ni mu daan doxee buñ ko ko indilee ba jébbal ko ko danañ ko jox Serigne Yaxya mu yore ko na ma ko daan yoree di ko seddale bu nu yeggee ca bis ba nag ba ca 22h ñu ngi ñaan bokki julli di bokki taalibe bi yëpp képp koo xam ne mën ngaa génn ca baas ba nu def waxtaan ya ca la ñuy commencé cérémonie officielle bi. Serigne bi nag nee na mi ngi woo mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Sénégal umma islam bi bépp mu ngi leen woo mi ngi woo Tidiane yi xaadir yi Laayeen yi Ñaseen bàyyiwul kenn sëriñ bi nee na mi ngi woo itam ki nga xam ne moom la yàlla teg ci réew mi muy président de la république monsieur Macky Sall sëriñ bi nee na ngi koy woo bu baax ak président assemblée di woo membre gouvernement bi ñëpp rawatina ñi nga xam ne nag dañoo féete ci wet gi ku mel ni sëriñ daam Diop nga xam ne lu xew moom dinañ ko gis sëriñ baa ngi koy woo mi ngi woo itam sëriñ di Niang mi nga xam ne taalibe la ci kër gi tey taxawu kër gi itam bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi woo sëñ daam jaane moom it ci kër gi la bokk ku baax la njaboot la mu ngi koy woo bu baax. sëriñ bi mi ngi woo sëriñ Pape Diop ancien maire Thiès mu ngi woo itam sëriñ Dambay Sonatel waaye nag. opposition bi yëpp mboolem parti politique yi bépp parti politique bu nekk ci réew mi ak foo bokk sëriñ bi nee na mi ngi lay woo tëjalul buntam kenn buntum sëñ Modou Fatick xëri la yor te ubbil na ko ñëpp te ku ñëw dugg. ñii nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tañ koy defee ci dëkk bi mu nga cee jiital nag sëriñ Abdou Lahad Ka ma nga koy woo muy meeru dëkk bi mu àndante ak sëriñ Fallou Mbacké président conseil régional de Diourbel sëriñ président conseil départemental de Diourbel mi ngi koy woo bu Mbacké président conseil départemental bu Mbacké mu ngi koy woo mook vice président am sëriñ Modou Kara Mbacké nga xam ne moom sax ci kër gi la bokk sëriñ bi mi ngi woo mbooleem koo xam ne yëgg nga woote bii di wax ne amul lu dul laylatul xadar te moom sëriñ Fallou dey yàgg naa leble képp ku mos a nag mi ngi sàkku nga fay si ko ci bis bi kon loolu rek la woon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu muy guddig laylatul xadar sëriñ Fallou xalifa sëriñ Modou Faty Khary ànd ak rakam di ko woote. ne ko magam ju sell ja daan amale Serigne Cheikh moom moo Modou Faty xëri te donne woon ko ca waajuram bu sell wa sëriñ Serigne Modou Faty Khary mu war a doon guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci aw koor yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2022 fii ci Touba Daaru kërim sëñ bi di ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn mbooleem buntu kër njabootu xaadimu rasul maam Mor Anta Sali maam Mara Mbakke bàyyiwul kenn ni ñu ko waxee bis bi. Euh, saa yu ñëwee danañ ko laytaayale am mbale mu war a doon aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab wii ñu nekk buñ ci jógee nag ci bis ba danañ ko dooree njàngum alquran incha allahu ndogu yi nga xamante Serigne Fallou moo ko daan taxaw ma ngi ñaan ndogu yooyu képp ku ko waajal nga and ko ba ci moom saa yu ko gisee ba noppi nag dana ko jébbal Serigne Yaxya Serigne Yaxya dex euh, euh, jëfe ci ndigal li ko Serigne bi jox. noonu lay fi di demee bu ñu demee ba 22h nag ci la ñuy amal cérémonie bi Serigne Fallou itam nee na ma ngi xamal ñëpp ni magam ju sell ji nga xamee ni tey. kenn mënatula tudd laylatul xadar te tuddoo ko muy Serigne Cheikh moom Serigne Modou Fati Xari bis bii moo di ab bisam ci la ñu koy ñaanal na ko taalib bi yëpp bàyyi xel Serigne bi ma ngi sant ñëpp ma ngi gërëm ñëpp ma ngi tàllal loxo ñëpp di woo nag mboolem ñu saytu wàllu wér-gu-yaram ñu yore wàllu sécurité mboolem organe de presse yi taalibe nekk ci biir réew mi ak bitim réew bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ñaan képp ku ci teew lépp lu yàlla dëxal ab jaam ci laylatul xadar yàlla defal la ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaa